sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahu aljalila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 wala xawla wala quwwata illa billahi aliyul azim assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu nuyu mbokki jullit yépp mbokki lislaam di ñaan suñ boroom subhaanahu tabaraka wa mu defal ñu yërmandeem defal ñu ak njéggalam noonu lañuy nuyoo bépp mbokk jullit moo xam te ni yaa ngi teewlu suñuy kàddu ci seen jotaayal yóbbulug ndaw ñi muy jotaayal xam-xam comme niñ ko baaxoo di waxee waaye di jotaayal fàttali ndax fàttali konte kat mënta ñàkk ci jullit ak moroomu jullitam ndax yàlla sunu boroom subhaanahu tabaaraka wa taala moo ko njëkk a digle ci alxuraan ngir jullit ñi di fàttalikonte ndax fàttaliko googu kat def leen di jëriñ ci seen àdduna waaye def leen di jëriñ ci àllaaxira jéen jëm suñu bàyyee xel nag suñu jataay bii weesu ñi ngi doon jàngale ci ki nga xam te ni dafay sàkku xam-xam lan la war a ci sàkku googee muy sàkku xam-xam muy yéene cee jëf jëf ju baax yéene génn ci ak réer te dugg ci xam gu wér waaye bokkoon na ci dundal gi muy dundal xam-xam mu yéene dundal xam-xam ci sàkku googe muy sàkku xam-xam waaye yéene ci jëf loo xam te ni jëf ju ñu xam la muy jëf joo xam te ni kat suñu borom moo ko santaane ca naka suñu borom nga jiim koo jëfee noonu kon loolu lépp bokkoon na ci nit ki buy sàkku xam-xam mu fas yéene yéene yu mel noonee kon tey nag ñu ngi tàmbali sàkku xam-xam ay tegginam teggin yi mu war a làmboo ki nga xam dafay sàkku xam-xam teggin yi mu war a làmboo ci sàkku xam-xam bi moo tax fi ñu ne faslun lii ab bunt la fii aadaabi taxallumi ci teggini xamlu wa xudda limeef na min aadaabi zi taxallumi ci tegginu boroomu xamlu firaaruhu mooy ak dawam min durri kulli muslimin ci lor bépp jullit kon bokk na ci teggini kii saako xam-xam mu bañ a lor benn jullit moo xam ci làmmiñam moo xam ci ay loxoom moo xam lu muy wax la moo xam lu muy jëfe kon bokk na ci teggini kii saako xam-xam kat waruta lor benn jullit waruta tooñ te dañ ko war a tooñ sax muy jéggale waaye warta jéem a tooñ benn jullit wala muy lor benn jullit mu ne waxut limeef na min haa ca moom sàkku xam-xam ay tegginam kaw nu xóo mooy ak nekkam mucc tey xaydaan di aji farlu fii far di yii ya wama ak lépp loo xam te ni xawaa làkk na ko te ak kadaa di ak fegu wala yakun te bu déet muy nekk mu waqira salaati di aji yeex a julli bi xayri ma osrin ci lu dul ngànt anil awxaati walif waxtu ya mu ne bokk na ci teggi kii sàkku xam mu nekk koo xam ne dafay farlu lool am lool ci wàllu farataam ak lépp loo xam te nii rek dafa aju ci ginnaaw farata ya moo xam sunna la moo xam lépp lu baax la mu farlu ca lool tam bañ a nekk koo xam te ni dafay yeexe julli julli juróom yi bu mu ci yeexe benn waxtu mu fexe di joxe julli ya ca waxtu ya ca nam waree waaye nag ci lurut dafa am ngànt loo xam te nii kat moo ko tënk ba mënta julli ca waxtu wa kon loolu rek moo mën a tax moo war a tax mu yeexe julli mooy mu am ngànt te ngànt la nekk ngànt lu wér bu dul loolu nag war naa fonk julli wala fonk lépp lu yaay farataam te suñu borom teg ko ko mu farlu ca di julli julli juróom ca waxtu ya di ko julli ca mbooloo loolu lu am solo la ci kii sàkku xam-xam kon nee na kii sàkku xam war naa fonk yooyee wartu nekk kuy sàkku xam-xam ba pare di sàggane julli wala muy ne lenn ci ay farataam kon képp kuy saaku xam-xam rek war naa farlu ci ay farataam di ko jëf na mu waree waaye di ko jëf ca waxtu wa ko suñu boom bëggee rawatina nag julli juróom mu ne wa kawnuhu ak ak nekkam bi xelmihi ca xam-xamam ba saqiyan di aji tabe waaye yakuna ak muy nekk xaamilan di aji jëf di jëfe xam-xam ba wa fiyan tey aji mottali kóllëre xam-xam ba fa kullu man képp koo xam te ni baxi la nay na bil xelmi ca xam-xam falaa budda mënta ñàkk lahu ñeel ko ti minibtilaa in ci ak nat nakkalaa goog mittital na mu ne tamit ki nga xam dafay sàkku xam-xam ginnaaw boo xamee ne am na xam-xam xam bu wér mu jëfe ko jëf ju wér waaye xam-xam boobee kat mu bañ caa nay moom bañ a nay ci xam-xam la bañ a nay ci xam-xam bi nag mooy ci jamono ji nga xam dafay jàng képp koo xam te ni yittewoo na ci moom benn xam-xam mu fexe ba xamal ko ko te bañ koo nëbb wala bañ koo denc wala képp koo xam te nii kat dafa soxla ci moom ab téere bu ñuy jàngee xam-xam mu fexe ko ko dimbali te yàlla rek tax te fexe tamit xam-xamam boobu mu jëfe ko jëfe ko war ndax waxoon nañ la xam jumtuwaay la ngir jëf loo xam ni nag jumtuwaay la ngir jëf bu ko nit ki amee te jëfewu ko kon dootul amati njariñ kon mu bañ a nay ci xam-xam bañ a nay ci dimbali kenn ci xam-xam moo xam ab téere la moo xam ci wàllu xam-xam bu nit bëgg mu leeral ko moo tax mu ne képp koo xam te ni nay na ci xam-xam am na xam-xam ba pare nay ca di ko denc bañ cee dimbali kenn nee na kooku mënta ñàkk suñu borom mbugal ko maanaam natt ko mënta ñàkk suñu borom natt ko ci àdduna mitital ko kon képp koo xam te ni rek ba pare nay ca caa dimbali kenn kon faaw suñu borom di ko natt faaw suñu borom dina ko natt natt yu tiis kon lu jar bàyyi xel la natt yi nag façon nattu yu bari la am na borom xam-xam yu ko indi ci ay lim natt yi nga xam te ni ñenn ñi dañoo wax ne mën da ñàkk suñu borom dina ko ci natt ci natt yooyee kon ki sàkku xam-xam war naa tabe ci xam-xam ba mu ne waxut da limeef na min xaa moom kaw nu ak nekkaram moo waqilan di aji wekk mooy di aji fonk lil xilmi ñeel xam-xam wa taazimi ak màggal ko lillazi ñeel la nga xam te ni xaa jàng na ko falay sa yan baxii du yell lahu ñeel ko wadduhu kitaabin teg ab téere aw lawxin wala aliwe aw waraxatin wala ab fooy mooy këyit xalaat turaa bi ci kaw suuf mu ne bokk na ci teggiini aji sàkku xam-xam mu nekk koo xam te nii kat dafay fonk lool xam-xam kii saako xam-xam war naa fonk xam-xam màggal ko rawat na li nga xam te ne daf koy daf koy jàng li nga xam daf koo jàng mu fonk ko lool te di màggal xam-xam te wekk xam-xam mooy fonk ko te ne yellut ci moom kat moom mi nga xam te ni day sàkku xam-xam muy jël ay téere yi muy jànge di ko teg ci suuf moo xam téere la moo xam aliwe la moo xam ay këyit la ay fooy la mu ngay jël di ko teg ci suuf waxuma la jël di ko teg ci suuf waaye bu fekkee ab téere bu nekk ci suuf wala nekk fu mu war a nekk wala mu nekk aliwe wala mu nekk aw kayit daf ko war a jëlee foofee teg ko fa mu gën a yeyoo mooy fa gën a kawe mooy mu màggal ko fonk ko mu gisee ñu sànni ab kayit mu for ko teg ko fu xam te ni fu kawe la fu weggu la loolu lépp bokk na ci kii sàkku xam-xam ay tegginam mu fonk xam-xam waaye fonk ca la muy jëlee xam-xam ne mooy lu mel ni téere wala aliwe loolu bokk na ci liy barkeel xam-xam bokk na ci it liy tax xam-xam yomb mooy fonk ko bëgg ko kon koy sàkku xam-xam rek war naa bàyyi xel ci teggin yi lu am solo lu am kon day mel ni dañuy wàcce foofu suñu kàddu suñ jotaay ab tey di joxe digg daje ci beneen jotaay incha allah rabbi ñu yeggale sunu bunt bi ci teggin yi sàkku xam-xam ba tey muy teggin yu am solo yu jar a bàyyi xel kon ñi ngi ñaan suñu boom defal ñu dégg ak topp ñi ñaanal bépp mbokk ji mi ngi teewlu suñu kàddu ak foo mën di nekk moo xam ci biir réew mi moo xam ci bitim réew la su mboom dolli ñu kàttan dolli ñu ne dolli ñu jéggal dolli ñoo taxaw dolli ñoo suturaal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ci barke bi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu yàlla na ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am sutura yàlla ñëpp am xewal in uridu illa al islaaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu